silaali ila aljannaati baaxin tawassaat wa kulli wa maali saana xaamin musassisu mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna mas nañoo laaj sëriñ tuuba xaadaloo laahu maxtaaraloo ndax xaside yi mën naa tege ci kaw alquraan mu ne leen doom xanaa fu ndey ja nekk mën naa tege ca kaw ga war ko sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu ne xasiida yi alxuraan moo ko jur kon mën naa tege ci kawam siiw na war nañoo xam ne alxuraanul karim am mbóot la waaye liy nekk ci kayit yi ay arab la moo tax sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaaraloohu itam wax ne li muy wax lépp ca lawxul maxfuus la ko toxale ni nga xamee ne alxuraan foofee la jóge kon dëgg dëggi alxuraan sax mooy mbindum sëriñ bi yaquudu rabbul aalamiin liya bi xayril aalamiin سر الكتاب بالأمين وكان لي بأفيدي باتاي yi man Serigne Cheikh Ndiaye Gana maay laaj ñi nga xam ne ñoo ngi topp sunu jataay yi yonante yi alayhi salaatu ak seen waajur yu jigéen ya kan moo gën wallahu aalam sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal